foofu de. waaw stratégiquement donc. loolu <laughs> loolu la wane donc Babacar Kébé. Mhm. bu ñu tëjee partie bu njëkk boobu dañuy dem jàngat beneen. Mhm. mu di la sortie de Tahirou Sarr njiital mouvement nationaliste. waaw euh, moom daal indi na sortie bu musclée waaye tamit tontu tontu yu dëgër loolu Ousmane Sonko. waaw démb de daanaka comme niñ koy faral di waxalee ci baatu yu koc mooy lu mel ni xeme. Mhm. yàq na ko Ousmane Sonko parce que nee na euh, malgré tout. mu nee na moom mu ngi bokkee ci coalition Diomaye mhm. Ousmane Sonko magam la waaye ci li mu jàpp mooy mhm. Ousmane Sonko ci jëm boppam dafa nekk magam boo xam ne dafa toog ci pénc mi waxal ko lu dul dëgg mhm. kon moom tamit day toog ci pénc mi weddi kàddu yi nga xam ne teguwul ci dëgg ci lim ko waxal même bu dee ne sax euh, nommément Ousmane Sonko cité wul li nga xam ne di turam mais ñëpp xam nañu ne kàddu yi mu doon yëkkati politique bi Tahirou Sarr di wut moom moom moo ko moom moo ko fësal mooy wàllum nationalisme gi mu wax ne dafa xaw a dangereux ci ñi koy nekk di ko waxee parce que ñun suñu biir suñu problème jéggi na li ñuy woot li ñuy yaakaar ne yenn ci ay étranger ñoo ne ci biir réew mi mm. xeñ yenn moomeel am nañ ko Tahirou Sarr jàpp na Ousmane Sonko li ko xeñ lii yëpp wala li tax xam-xam bokk na ci waaye tamit ñàkk doon ni koo mm. ko ci defante mu yaakaar ne lépp defante la war a mën doon mm-hmm. te da ko dafa jéggiloon ndax nee na yi moom lay faral di politiquer moom a mënee mm. ba tax na nee na mu ne kàdduy kàcc yooyu la mu am moom la teg tamit ci mbiram ba pare plage projet en même temps aussi programme te nee na séntu ko ci moom parce que yàgg na di mën a politique boo xam ne li ko ci doon tax a jóg moom Tahirou Sarr mooy sangu ko solal ko yére bu weex di ko topp di ko défendre nee malheureusement ci fi ñu yegg si mooy dañoo dem ba dernier virage Ousmane Sonko dafa mel ni ku ko jàmb maanaam jam ko daal paaka ginnaaw mm. te loolu di ko nangu moo tax muy indee argumentation jàpp ne lu jëm ci wàllum carte de séjour yi fi Pastef kenn mënu caa génne programme politique bu ci bokk ne mën na wane ne ñoom carte de séjour prévoir nañ ko mm. beneen bi mooy wàllum extrait yi nga xamante ni wax nañ ko nee na Ousmane Sonko déjà ci lim li mu wax rek nee du dëgg ci ñi nga xam ñoo di étranger yu nekk ci biir Sénégal mais du jëm ci ko waxee tamit jëm ci wàllum réciprocité bi nee na mm. ñàkk xam-xam mënu la weesu li nga xam loolu ci Ousmane Sonko wax mm. beneen boo xamante ni jot na ko cee teg mooy maanaam politique gi mu àbb nee na ak lu mënti xew ci li nga xam daanaka moo di politique am ndax gëm na ni ñu bare bare ko mm-hmm. loo xam ne itam mën na ko weddi wala dindi ko ci yoon bi nga xam ne moom la ab bu soxna Aida alors Mouhamed ndax xaaroon nga démb tey bu saar génn tonto nu ni mel ak anam bi euh, balaa ñuy dugg ci fond argument mi kii di Ousmane Sonko. waaw bon man jàppoon naa ne euh, comme moom dafa tàmmali woon di naxante dugg si biir euh, mel ni ku bokk si mbir yi te bokk si di naxante pour man mënoon na naxante ba élection yi jàll. Mm-hmm. après mu soog ut yoonam parce de toute façon. Euh, ku ko yàgg observé di nga xam ne que euh, son plan c'était de s'opposer ah loolu moom c'est c'était clair euh, mais xam na ne moom mënul am amul doole au-delà de li muy jéem a mel ni kuy am jege passif loolu moo nekkoon doole mm-hmm. mais Ousmane ni mu waxee moom ak ni mu réagir da ko démasqué carrément ba nga xam ne nii léegi il est clair que ñëpp xam ne ne jege bu mu doon jéem a jege Sonko c'était juste pour jéem a taxaw taxawaay politique parce que son mouvement n'est pas du tout représentatif. Mm. nekkul koo xam ne nii aussi am na benn dayo dayo campagne am sax doo ko gis euh, muy campagne lu bari dugg ci réew mi yooyu noonu moom fenn la ko carré woon daal mooy à travers ses discours ak jege bi mu jege woon passif du passif dal mu far donc ñu démasqué ko à la dernière minute euh, donc il y avait deux options yu mën a taxaw si moom ce soir mu jël communication boo xam ne nii day mettre boppam ak Ousmane Sonko sur le même pied jàpp naa ne boo moo nekkoon la meilleure communication mm-hmm. Ousmane Sonko moom yàgg na ànd ak Ousmane Sonko di mëne li muy mëne Ousmane Sonko xam ko te mosu koo wax dara. Mhm. kon bu demee ba ay législative taxaw ba à quelques jours de des élections Ousmane Sonko waxee nii loolu mën na koo jaaxal parce que li mu yàgg wax la. Mhm. Ousmane Sonko di si ànd moom bu ko jëmaale président ak nangam bu nekkoon déclaration am noonu la ko teniree. Mhm. daf koy mettre moom ak Ousmane Sonko euh, euh, sur la même enseigne mais bu bu jëlee nii daf waxee daf koy taaxali carrément ak Ousmane Sonko te moom amul doole en dehors li mu yaakaar gisoo moom dañu naan sax lenn si ay radicaux passif ñoo ko mhm. mënoon jàppaleeg yooyu. donc loolu daf koo démasqué carrément ba pare mi ngi wax ñàkk xam-xam. Mhm. Euh, booy xool si discours am lu bare bare bare da ngay xam ne waaw ku ku ku manqué lu bare la. ku mhm. manqué lu bare la si wàllum culture. parce que da nga koy comparé ay ñoom Marine Le Pen ak yooyu mais Marine Le Pen boo koy déglu nga xam ne kii am na culture. am na culture xam na histoire France non non du caaxaan Marine boo koy déglu ak papam Jean-Marie Le Pen da nga xam ne ñi loolu mun loolu bañ bañ bañ nga xam ne ñu cultivé lañu ñu xam ñu xam France lañ mun nga d' accord da bañ d' li ñuy wax mais da nga xam ne au moins am na fu mu ko teg mais moom moom euh, da xam ne des na des na des na lu lu lu lu lu bare bare bare bare bëri euh, donc lii nii daf koy daf koo freiné su gaaw donc nag jàppoon naa ne euh, mu naxantoon ba jàll si dimanche parce que am nañu jàppoon ne ko commencé woon am tuuti tuuti épaisseur ak yooyu mais je pense que ñu ngi ko démasqué ni à la dernière minute. Euh, xaw na ko déstabiliser tuuti parce que xaaru ko woon parce que n'avait pas vu Sonko venir même man xalaatu ma woon sax Sonko dina dina si wax ah, ak ni mu si waxee euh, si loo xam ne ni aussi euh, je di dit hier dafa jël li yenu maanaa si li Tahirou di wax adopté loolu ba pare jël la si mot la si gën a dangereux mu mu sànni ko parce que li dangereux si discours Tahirou Sarr pour nga xaman ko dëggantaan mhm. bu Sénégal ak Guinée waroon fubal suba suba suba suba benn match bu capital si ngay xam dangerosité wu kàddu yi muy yëkkati ndax bu leen fàtte ne tolloon na fi ay jamono diir bu gàtt diir tolloon na fi benn jamono bu yàggul dara loolu commencé woon na jug di nga lii tax yooyu noonu di mën a jug lu bari mooy xeetu discours yi nit ñi. Hmm. nous sommes tous d' accord que kuy dugg sa kër moom kuy dugg si réew moom faaw ñu xam yaay kan identifier la la nga war a warloog réew bi nga warloog loolu nous sommes tous d' accord mais bu discours demee ba tàbbi si leneen. Hmm. Babacar Kébé boo amul liggéey. boutiquier bi si koñ bi moo la xañ si liggéey mhm. foofu noonu ça ça suscite beneen beneen mbir boo am na si beneen aussi dafa am ñu bëri ñu jaawarle mhm. dem la am commentaire mu ne ma chiffre bi Ousmane Sonko wax doyu ma parce que booy xool guinéen yi wala ëpp neen fi nii dañuy jaawarle ñaar les sénégalais d'origine guinéenne la ñuy boole ak ñi fi amul benn manaam at guinéen yi booy xool voilà mais booy xool bu ñuy wax dans leur euh, dans su seen compréhension ñoom ñëpp la ñu wax Guinée. sama genre gi ñëpp la ñu wax Guinée léegi boo jëlee loolu bu nekkee loolu nga tuddee Guinée. lim bi day ëpp. day ëpp deux cent mille mais boo jëlee les Guinéens yi nga xam te nii les Sénégalais d'origine guinéenne wala nangam boo leen si génnee après li si des du du bari comme yow ni nga ko foogee mais de façon. Sénégal xamul sénégalais d' origine guinéenne xamul sénégalais d' origine euh, étrangère. dama c'est comme le cas des libanais. justement voilà xam nga booy wax libanais libanais libanais. Mhm. ñoom dañuy wax rek si der bi lañ koy jëlee wala si tur beeg yooyu. Mhm. mais boo jëlee ñi fi am kay dëggantaan nekk ay sénégalais. après ña say des du bari. ñoo ëpp ñi fi léegi nag boo jëlee kii bi xam nga da lay nax xam nga par exemple boo jëlee kii. Mhm. Euh, benn xeet rek ñu fi nekk ñu bari nga ne ñii ñëpp ñoom. ngi ñuy gëm loolu nous sommes 5 millions de Guinéens au Sénégal. xam ba pare manifestation yi fi doon am xam nga ñu bëri leen mooy manifestation yi fi doon am mais manifestation yi fi doon am par exemple bi ay xeexoo bu ñu amee Guinée par exemple mhm. ñi ngay gis ñu feesal del place de la nation mhm. da naan ñiy bëri leen fi de c'est vrai mais boo jënee ñi nga xam ne nii maanaam guinéen kese leen maanaam amuñu kiir Sénégal li si du bari moo tax loolu tamit ràññeet la mais beneen aussi boo koy xool si wàllum culture histoire mhm. xam nga euh, dem na waxtaan ak Thierno Diop moo xam am solo dafa am li tuddee le peuple des fleuves mhm. da ngay gis euh, Fouta Djalon euh, Guinée Fouta Massina mhm. Fouta Tooro yooyu yëpp ce sont des booy xool benn askan bi la boo xam dañ doon topp fleuve bi dem les éleveurs ñoom Euh, comme éleveur moom booy sàmm da dem rek ñu nekk ay nomades mhm. ñi nga xam ne aussi ñu mën nekkoon les ñu nekk ay sédentaires mhm. mais lu mel ne boo ko xamul kon mën lu mu lay woon mooy ñu bëri mën na ne nag ay mbokk mhm. ñii des parce que ay baykat leen ñee di tukki parce que ay sàmmkat leen di dem ba feneen sanc fa dëkk maanaam seen i mbokk ñii ñu ngi Guinée ñii ñu ngi Mali nangam loolu histoire boobu boo ko xamul mooy tax ngay waxee ni si benn bi mooy waral nga gis benn sénégalais boo xam ne nii sénégalais la imam sénégalais mu am benn mbokk boo xam mënoo koo tàqalikoo ma Mauritanie moom ko Mali Sénégal Dakar nekkoon euh, balaa Dakar sax euh, Saint-Louis mais Sénégal doon abrité la capitale de de de la de de l'AOF Afrique euh, Afrique occidentale française donc yooyu noonu yëpp aspect aspect la yoo xam ne nii foog nga xëy teg sur la lu mel nii mais c'est un discours boo mënoon a jàll parce que lu bees fi woon. Mhm. et puis taux de bu bare. xeetu Babacar Kébé bi nga xam ne mooy loolu kay da leen gëmloo na kay li nga ñàkk liggéey ni nekkul ne amoo formation wala dee du loolu mu ne lan la nga ne ko waa kay waa jee nee moo la tari am liggéey. taxaw na ba ñu doon plébiscité plébiscité euh, d'ailleurs euh, moom sax ah, ba ñuy mi ñuy former gouvernement bi ne moom noonu ko dénk mu doon ministre de l'intérieur waaw loolu commencé woon na ko kii mais xam nga loolu sax commencé woon na yaaxal yaaxaloon na tuuti euh, Diomaye su ma nee ko tuuti mooy mm-hmm. beaucoup de sénégalais d'origine étrangère war ma sax wax loolu mais pour mu leer la parce que mm-hmm. sénégalais sénégalais la mm-hmm. ñu si bari ñu comprendre woon ñoom dañoo opté woon pour bañ a voter Diomaye parce que dañoo gëmoon ne que moom loolu lay prôné parce moom mhm. moom Pastef moom Pastef la bokk. Mhm. même ñuy wax ay les sénégalais aux sénégalais yooyu njëkk ko fi wax ah. les africains l' Afrique aux africains mhm. loolu njëkk fi wax keroog am na benn banc public boo xam ne nii ñu si waxtaan ak Cheikh mu ne ma am na benn téere Baye Niass boo xam ne nii. mun si théoriser lu mel noonu mais si wàllum panafricanisme ak yooyu noonu kon muy muy vision bu yaatu yaatu boo xam ne lu am la. mais moom fi ko jëlee moom aspect a bi gën a bi gën bi gën a dangereux si aspect si mbir mi si mbir mi la jël mm-hmm. mais moo nekkoon si discours bi nga xam ne moo koy may mu positionné wu mën a taxaw mm-hmm. léegi nag euh, ba fan lay dem xam naa ne moom bu nekkee ne moom jël na carrément distance ak Pastef il faudra que mu liggéey bu baax a baax am base am ay cadre parti bi am kayit xaw ma ndax am na kayit wala amul kayit mouvement bi mouvement la waaw mouvement bi am kayit xaw ma ndax mouvement bi sax am na kayit wala amul kayit loolu tam <laughs> loolu loolu tam après mu liggéeyaat ba xam ndax euh, les sénégalais vont a son euh, son projet. débat la woote digganteem ak Ousmane Sonko je t'entends souvent dire que mosuloo ko gis débat dafa mel ni. waaw non sur sur ce sujet sur ce sujet. Hmm. pas si yeneen sur ce sujet. dafa bii la bëgg a ak Sonko. waaw mais mais parce que refuté na li mu indi comme ay chiffres. comme moom di idée mi. mais mais mais balaa ngay débattre ak Sonko sax na ngay def yenn débat ñu xam ne yow mun nga débat mën nga mën nga. mën nga mën nga kii say argument mais mais mais mais Tahirou boo ko doon comparé kenn si biir Pastef maanaam <laughs> kan la war a débattre Pastef man je me pose même cette question booy xool rek si euh, si si si kii kan la fa war a mën a débattre je me pose même cette question euh, liggéeyagul lu war a tax mu débattre rek parewul kon non liggéey liggéeyagul lu war a tax benn liggéeyagul si anam boo ko mën di jëlee liggéeyagul lu war a tax mu mën a débattre rek Sonko mm. Sonko da koo jël rek jëfandikoo ko nii parce que jàpp naa ne politiquement soxla woon na ko pour deux objectifs wala ba trois au-delà de lii mu clarification bu mu def pour rassurer euh, les sénégalais d'origine étrangère ak yooyu noonu si wàllu élection législative yi pour deux mm-hmm. deux deux objectifs mm-hmm. benn bi mooy coowal batt mu xaw koo fay tuuti ci wàllu beneen coow dëppkaat yi tuuti noonu mais loolu c'est c'est pour soixante-douze heures mais beneen bi aussi moom mooy électorat bi nga xamante ni moom si la yaakaaroon radicalu Pastef bu nekk wala nekk mu ne la kaay mu couper le lien lien boobu noonu pour xañ xam ne ne mënut am électorat lu dul foofu. Hmm. xam na loolu. donc man essentiellement deux objectifs voire trois objectifs politiques yooyu la si amoon moo tax dem bi mu génnee dafa jaaxle parce que fa mu fa mu jafandu foofu lañ jàpp ne mënu naa gën a jafandu mais mu def ko intelligemment waxee noo xam ne nii. mënu naa génnee neneen moom ak Ousmane Sonko ñooy bokk àtte si mbir mi. Hmm. pour man loolu la waroon nekk sama discours. maanaam dafa juum ci génn bi. waaw politiquement moom juum na mais waxoon moom génn moom politiquement boo xoolee àndoon na ak Idrissa Seck pour mu mhm. xaw siw dafa génn commencé ŋaañ Idrissa Seck. Mhm. Euh, parce que bi Idrissa Seck demee. Euh, mhm. Benno si la commencé. ñëw di imposer politiquement. Mm-hmm. di ñëw nànk par nànk di ngaañ Idriss Seck jamono jooju ñoon parce que bon jamono jooju opinion bi mer woon nañ Idriss Seck. Mm-hmm. pour imposer wu après Ousmane Sonko ñëw lii xewoon après mu dem ranger wu si ginnaaw Ousmane Sonko pour am tour euh, di def les plateaux ak yooyu dem ba am tour nag euh, son projet gëmul naa sax mooy. dem ak Pastef ba si kanam tuuti. Mm-hmm, mm-hmm. ba commencé am doole am aura soogaa nag jàkkaarloo Pastef mais tôt ou tard la lay s'opposer à te nee na génnul ci coalition bi dafay des ci coalition bi di xeex li muy xeex. coalition su boobu amatul. Diomaye président moo amatul <laughs> loolay problème bi coalition bi su boobu moo amatul. waaw kër kër nga jàngatee démb sortie bi muy la réplique de waaw dama jàpp ne dans le cadre du euh, ci sorte bi nga xam ne moo la def est que nekkul ne anam bi mu ko defee moo prématuré. Mm. c'est-à-dire politiquement boo ko xoolee bu baax a baax mënoon na am benn réussite mais mu bañoon nekk dans le cadre boo xam ne. Mm. Euh, parce que man mënumaa gëm ne nit ki yéen ñaar. Mm. da ngeen sekk dara nga am fu mu la toll. di jour au nga mën a génn pour demantir ko nga koy waxee ci benn anam bi gëwuma loolu en fait. les mots utilisés pour man. Euh, wanewul carrément que ni lafinité bi mu doon incarné wala peut-être bien gëm bi mu gëmoon la personne peut-être bien est-ce que dëgg la ci moom. musul gëm musul gëm Sonko en fait mm. c'est-à-dire que moo lay wan peut-être bien que ci anam bi nga génnee mën na wane sa vrai visage envers la personne. parce que coûte que coûte en moins de vingt quatre heures mbir yi warul mën a basculer ba ni ni ki waxee ak yow même bu tuddul ak yow ni nga waxee ak moom même boo ko tuddee defal nga peser ko nga mën a xam bu fekkente ni réellement foofu doo wane benn visage bi wane ne yow ce que réellement. sa politique mosoo ci boole wala sa gis-gis mosoo ci boole gëm-gëm niki mais bon ça peut se comprendre pourquoi mu wax loolu mooy parce que euh, Tahirou ci mm. ndorteelam boo koy xool bu baax politique am. Mm. c'est vrai li ko gën a may doye bi c'est la personne d'Ousmane Sonko ak la mm. politique d'Ousmane Sonko. mais benn instant aussi il faut nga bàyyi xel que ne ñenn ci ay patriotes comme niñ leen di woowe ñu bare bari dañ ko commencé woon di jox bopp wala ñu jox ko bopp déjà. Mm-hmm. pourquoi parce que dañoo gëmoon ne politique bi muy mëne comme te ñoom ñaar xaw nañu jege peut-être mm-hmm. bien Ousmane Sonko dafa adhéré. Mm-hmm. te moom comme li muy wax en tant que des Sénégalais peut-être bien ils ont besoin de quelqu'un bu porter message boobu noonu kon moom bu ci waxee bu baax a baax aussi am na benn doy bu mu koy jox. léegi bu fekkee da nga dem loolu nag di ko doxee di ko doxee ba toll ci élection vingt 24 heures wala 48 heures ñu war a dem élection mais xelal dernier natt bi am au niveau de la RTS sortie bi à part Ousmane Sonko moo ëppale nombre de sondage yi ñu joxe sondage yooyu noonu li mu joxe xam nga loolu dafa am doyo léegi nga nar ko calculer à 48 heures mu mel ni mhm. li nga construire loon lépp. Mhm. nit mu nërmeelal ko. li mu ci deux ans Sonko ci deux heures la ko. voilà mais subitement dafay mel ni ne kooku dafay dafay dafay am fu mu lay laal carrément. madame Ba systématiquement est-ce que Sonko dina nangul li mu sonn yëpp si wàllum politique. waaw waaw foofu laa jëm si. benn waay nekk soronam dafa mel ni nit dugg sa biir kër benn benn na ma baal si misaal benn benn sàcc dugg sa biir kër nga gis ko bàyyi ko rek muy roñ nga bàyyi ko muy roñ bàyyi ko muy roñ bàyyi ko muy roñ mu gi rek yaakaar na gisoo nga ne ko eh tegal lool lool loolu mais Ousmane Sonko politiquement mënu woon seetaan coono bi mu am nii si wàllum politique yëpp mm. mais toog rek benn waay nekk si keeram si ronam mais mais di rocc di rocc di rocc di rocc mbirum sa Ndiaye sax mu si jéem a <laughs> di jëm a charme waale patriote yi mer. mais xam mais xam mais xam nga mais booy xool tamit. non Ousmane Sonko mënu woon nangu lool. non mais xam nga tam booy xool xam nga man fan laa ko teg. Mhm. exactement au delà de tout ça. demal nga calculer l' élection législative de deux mille vingt deux nga xool Ousmane Sonko ak ñi génnoon Pili Forest bi ñu demee pencum ndaw réew comment il était avec Ousmane Sonko. Pape Djibril Fall benn ci la bokk deux mille vingt deux. Thierno Alassane Sall peut-être bien benn ci la bokkoon 2022 Ousmane Sonko mënee boo koy xool. Mhm. ñaar ñooñu wala Pape Djibril Fall musul bokk ci ñu mu doon bàyyi xel wala di leen calculer sax ci éventuellement ëllëg quel sera leur comportement à l' assemblée nationale. ñi rëcc jàll. te Ousmane Sonko doonu leen woon tudd ci merci beaucoup boo xoolee bu baax ñooñu après ñoo mujj ñëw construire entre temps benn politique boo xam ne dafay ñëw pour mel ni luy def benn confrontation seen diggante ak Pastef est ce que la mu defaloon en 2022 dina ko bàyyi mu jàll ci 2024 pour diir que dem na ba calcul peut être bien que. laisser ñenn ñi ñu amplifier sa ba dem assemblée nationale. ëllëg ci biir mën naa jur benn opportunité pour que ñu construire benn base bi pour créer une confrontation même au niveau de l' assemblée nationale. parce que su boobaa non seulement titre bi dafay gën a am doyo. Hmm. parce que député nga nekkatoo n' importe qui. mais également aussi pour nga mën a am les moyens wala tour bi pour di construire ay bases politiques yi mën na bañ a nekk problème kon si tu as l' occasion d' affaiblir la personne bien avant. est-ce que réellement doo ci jëfandiku pour dem fànq ko déjà balaa mu yegg fenn fii. Hmm. waa ji li mu war a am ci plus fort wala leneen pour mu voter ko pour mu dem pencum ndaw réew ma mën nga koo yàqal déjà te su boobaa tamit li koy gën a métti mooy anam bi mu koy defee njumte mën naa am ci moom parce que moo tax ma gëm ne sort voilà Tahirou c'est bien de sortir mais la manière de sortir. Mm. foofu la problème bi di nekk. mais mais mais moom génnam bi est-ce que boo koy seetlu nekkul lu mu dencoon ci biiram. Euh, doon hmm. xaar occasion bi hmm. jot. ngir mu hmm. becc ko. waa non ci benn côté parce que a parlé avec le cœur. Sonko xamal àdduna euh, Aïda euh, defante la xam Aïda anam bi métti anam biñ ko liñ liñ ko teg ci waxtu wiñ ko teg ak niñ ko ko tegee moo métti foofu sa xol pour mu mën ko supporter maanaam faaw nga goxi pour mën a pour mën a pour mën a non si la constru non construction bi dencoon si moom rek la génnee mais lan moo ko yee foofu lan moo ko yee ak nu mu ko yee moom franchement Ousmane Sonko. waaw ah non ni mu waxee attaqué Amadou Ba. Mhm. wala ni muy attaqué wu ko ko ko noonu. non attaqué wu ko ko mais Mouhamed mais li mu koy xeeñ ngay bàyyi la wax si xalaat. du sax attaque bu frontal ni. non pas attaque sax pas attaque mais xam la pas attaque mais. dafa ñëw dugg ci biir programme am waaw waaw jël jël li si yenn très bien dafa ñëw maanaam dugg ci biir programme am mhm. mm-hmm. booy xool sax mën nga wax sax ne Ousmane Sonko attaqué wu ko peut-être bien attaqué wu ko mais da koo parce que il ñi ñu bare bare a une bonne idée mais est-ce que réellement ak ni mu koy véhiculer ni mu koy argumenter est-ce que réellement kii na quoi maanaam correspondre na mm-hmm. parce que man réserve bi moo ci amoon xamal na dama ne woon dafay nekk irrégularité nga nekk ci benn comité mm. mooy CEDEAO nga gis CEDEAO démarche bi mu am ci voilà communauté CEDEAO bi ci ni muy doxee communauté CEDEAO boobu ni muy doxee mm. nga xool réew yi mu ëmb ci seen biir nga xool également politique bi ñu accepté adhéré ko à l'intérieur de la CEDEAO mm. léegi yow sa politique bu fekkente ni dafa am lenn loo xam ne dafay dajale ak luy xaajale est-ce que warul mën a gën a cibler ce qui en dehors de cette communauté plutôt que ci biir communauté bi

affaire de séjour au niveau du Sénégal n'est pas réglementée. Mhm. loolu réglementé nañ ko depuis le vingt janvier mille neuf cent soixante onze. Ah, maanaam kon ce n'est pas rigoureusement respecté quoi. waaw mhm. mhm. bien et bien une loi boo xamante daanaka dugg na ci pàcc gi. te boo demee nga bu ko ñuy càmbaraatee bàyyi ko xel. lañ ci bind te mu tënk ko correspondre na carrément. Mhm. pour une manière de protéger ak bàyyi nit ñi également bu ñu ne ci biir réew mi ci yan anam lañ fi war a nekkee. ak ci mhm. ban anam moom lañ leen war a mën mhm. toppee. mooy carte d'identité étranger. exactement carte d'identité étranger loolu am na mooy seet voilà très bien te am na ñoo xam ne ba ndege ni biir Sénégal mais Mohamed c'est pas une obligation que tous les pays yi nga xam ne dañoo bëri ay étranger que obligatoirement am. dama jàpp ne y a une politique qui a déjà été menée. Mm-hmm. am na ay lois yoo xamante ni installé nañu ko mais c'est ces lois là ci jëm boppam moom la ñu war a war a mën a mettre en vigueur. Mm-hmm. topp ko de sorte que au mu répondre ci politique bi nga xam ne dëkk ba fa la am comme tolluwaay c'est vrai. nu ari di doxee. te loolu mu gën a laaj ay yeesal mm-hmm. tout le monde va s'y conformer. tout le lay arranger rek. tout le monde va et c'est même à l'avantage des étrangers. mais ñu bëri bañu loolu. Mhm. mais ñoom mais ñoom lay gën a protéger. parce que xam nga lu tax ils veulent se faire respecter. Mhm. te loolu bu amee mais ils vont se faire respecter davantage. boobaa kenn du leen stigmatisation bii nii sax ñuy jéem kii dootul amati. Mhm. loolu c'est à l'avantage de tout le monde. benn day baax réew mi pour des questions sécuritaires ak nangam peut-être sax mën na indil koom réew mi. mais beneen pour l'étranger lui-même. parce que day tax ñu nekk réew mi fii ba pare kenn duñ fi xat. parce que nit bu nekkee ne yaa ngi acquitté wu de da lay noppal parce que da lay mettre à l'indépendance da lay mettre à l'indépendance euh, moo tax loolu loolu ce n'est pas le problème le problème nekkul si yooyu noonu mais problème bi nekk juste mm. stigmatisation bi nga nii mm. mën na taal ay ay ay ay ay na taal réew mm-hmm. mën na ne ay tension yoo xam ne nii lu lu lu lu motoon mën a éviter loolu foofu rek la problème bi nekk moom non man moom dama jàpp ne peut-être bien dans l'idée mais démarche bi peut-être bien ci yenn kii foofu la problème bi di nekk te dama dama bokk ci ñi gëm ne am na mm-hmm. idée bu baax mm-hmm. mais y a une manière de faire passer son idée parce que parce que jàpp naa ne problème bi yëpp foofu la ne mooy te nit nag bu ñu la critiquer jàpp naa ne parfois dina ci bokk nga xool ani ban euh, anam nga war a mën jaaree ba defaat benn tëggin bu yees boo xam dina la permettre

mais dama dem voilà très bien mais booy xool bu baax également aussi aujourd'hui ci biir Pastef ak ci biir feneen ak feneen mhm. man jàpp naa ne ak lu mu gàtt gàtt ñëpp dañ lay wax ne il a idée mais il une manière de faire passer son idée te man jàpp naa ne laaj na ko aussi ci que moom mu gën xool ban beneen anam bu mu war a mën a tëggee de sorte que mooy cette idée là mu mën ko mu mën ko koo jàllale am ci li nga xam ne moom la bëgg sans pour muy dugg ci yenn idée yoo xam mooy gën a joxe luy garaaw parce que Ousmane Sonko ni mu ko tëggee rek déjà dafa dem répondre carrément ci ne idée bi dafa dangereux idée bi dafa dangereux jëmal xool nooy dédouané woo ci dangerosité boobu ñuy wax jàll ci beneen aspect pour faire passer ton message. et cette idée là aussi non non mm. xam nga li mu wax maanaam nañ jiital sénégalais yi si lépp nañ favoriser sénégalais yi. Mhm. loolu ñu ko wax Abdourahmane Diouf awale. Mhm. loolu dafa bokk si cëslaayu parteem mhm. mooy le fépp fi muy jongante nañ jël sénégalais bi privilégié ko loolu dafa bokk si cëslaayu. awale kon bu ñu bu ko yemalee foofu. du am lu bees. léegi pour mu bees foofu nga àgg si benn extrémité boo xam ne nii. moom mooy jur mooy tax ñu siy waxtaanee nii comprendre nga. Mhm. Mhm. moo tax il comme ça euh, te lii baa woo dafa am solo euh, bu nekkee ku mel ni baat ni mu mën a taxawee frontalement contre Sonko mooy baat leer na ko ne moom politiquement. Mhm. am na lu mu am balaa sax Sonko du juddu. am na fu mu bokkoon ci wàllum politique am na maanaam électorat moom boo xam ne nii moom mën na koo am en de Pastef parce que moom yëpp politique sax Pastef judduwul mais bu nekkee yow su ronu Pastef nga nekkoon yaakaar contradiction ñoom mosoo mhm. koo ñeme wax même mu nekk mosoo gëm Sonko mais soo koo bëgg a wax parce que xam nga ne boo ko waxoon foofu noonu jamono jooju dalay tàddal mhm. dalay dalay yàqal nga ne bàyyi rek ma di fii nii ba am li ma bëgg su ma demee ne ba nekk kuy mhm. boo xam ne ne Pastef moo ma moom moo ma moom moo ma moo ma yaxal après ma soogaa jàkkaarloo Pastef mais à la dernière minute si la Sonko comprendre lool il a raison de de de sécuriser son son électorat euh, parce que nag législative moom xob boo gisoo fa précieux de. Mm. waaw xob yëpp précieux. te moom la Sonko comprendre maa ngi koy dégg si kàddoom mu ne Ousmane sonk li ko metti mooy lim ma ne kaay rangé wu sama ginnaaw ma bañ te pourtant ay sotteem doon nañ dégg mu ne. Euh, Sonko woo na ma te war nañu gisee wala genre waxtaan nañ mais waxul woon fond mm. fond waxtaan bi lan la woon. ndax ah. loolu taxul tam Ousmane Sonko génn it wane ni li nit ñi di njort du loolu moom moo moo ne waaw bu nekkee dafa bañ a boot si ginnaaw Sonko moom am na si droit moom mm. am na droit bañ a boot si ginnaaw Sonko d'autant plus que bokkuñu gis-gis mm. euh, ay nit na bu ñu bokkul gis-gis ànd bi dafay jafe te lii xew wane na que ñoom ñaar bokkuñu gis-gis maanaam am na fu ñuy dajee mm-hmm. mais am na fu ñuy tàqalikoo mm-hmm. léegi nag kon pour ñu mënoon ànd ñaari mbir moo mën a am mm-hmm. euh, soit nga adhéré maanaam entièrement si ki lay woo li mu lay woo. Mhm. Mhm. nga renoncer waale si li nga xam ne nii moom nga gëm yow. Mhm. wala moom mu renoncer si li mu gëm moom pour adhérer suñu ko ñaari yooyu ñaari condition moo mën am pour daje am. bu dul loolu taaxal ko dayam parce que ñu bokkul gis-gis. te dëppoowuñu dëppalewuñu seen i gis-gis mënuñoo ànd si wàllum politique donc euh, bu nekkee loolu moom euh, il a il a il a pleinement le droit de ne pas se ranger derrière Sonko. léegi nag ni jël yoonu boppam. imposé wu. Euh, jéem a convaincre les sénégalais bu nekkee sénégalais tamit convaincre na leen si loolu lu ñu war a def rek ñu def ko. waaw parce que bëri na ci sénégalais yi doon wax il serait le premier opposant ci kanam euh, donc Ousmane Sonko d'ailleurs peut-être du surprise ci ñenn ñi. non du surprise pencum daw réew ma. Mm. bu ñu fa demoon ba nit ñi am doye gi ba toll di nga doon comprendre bu baax li ma lay wax ci certains ñu construire avant en deux mille vingt deux ak deux mille vingt ci euh, du nouveau dans l'affaire